Thank you. bare

ñoo bokk suuf na soo bàyyi

jàkkaarloog gouvernement bi fi nekk ñun nag suñu njiit dafa nekk bu pacifique boobu lañ toog te gëm nañ ni nguur gi Macky Sall ak nguuram jot nañu jàkkaarloo ñoom te fa lañ jëm bu soobee te nag lu ñu may ñu làmb bi waaye mu am benn beneen façon doxalin ak beneen façon gisin bu mu indi ci làmb politique ñu jàpp ne sunu avenir mooy sunu affaire ku laal xëyu ndaw yi laal président Bougane ku laal les valeurs en déliquescence laal président Bougane président Bougane mooy koo xam ni boo demee ci le Sénégal des profondeurs doo dox mukk jéego te waxuñu la fii teg na fi tànkam saafonte ñun ci naqar bu ñu am wala ci bànneex bu ñu am kon kooku bu bëgg na réew mi jàpp naa ni du nekk loo xam ne dañ koy laam laam le président Bougane avec le mouvement Gëm sa bopp nga xam dañu am ambition servir le Sénégal servir les Sénégalais moo tax nekkuñu ci dund des combats de principe combat de principe yooyu moom moo waral Dakar yi dajaloo woon ni dañuy investir seen président candidat 2024 ñu ñaan yàlla au soir du 25 février 2024 que le mouvement Gëm Sa remporter élection yi haut la main le premier tour mu bañ a am loolu moo ñu tax di sonn ndax dafa am lu am solo loo xam ne da koy faral di wax il faut que ci politique bu ñu bëggee changer les paradigmes bu ñu bëggee inverser la tendance bu ñu bëggee opérer une rupture nen rek lañ mën a def mooy ñuy xool ci parcours bañ di xool ci discours yi le discours peut être prometteur mais également trompeur. mais parcours moom du fen moom parcours du nax kenn du tas yaakaar nit mën na ñëw dig la dig yu koy xet ba nga gëm ko mu falu def li ko neex damay illustrer loolu ci le président Macky Sall lan la ñu digoon en 2012. bu ma ñëwee damay restaurer l'état de droit bu ma ñëwee damay dooleel démocratie mais il s'est trouvé que. Depuis son accession à la magistrature suprême, le président Macky Sall mi ngi nasaxal même les droits fondamentaux les principes élémentaires de droit président Macky Sall daf koy les libertés yi nga notre constitution moo consacré conféré ci article 7 ak article 8 le président Macky Sall daf koy salfaañe muy liberté de réunion d'association liberté d'entreprendre liberté d'opinion liberté syndicale ak liberté de marche yooyu ay liberté loo xam ni notre constitution dafa ko consacré dafa wax sax ni article 9 ci constitution bu Sénégal toute entrave à l'exercice de ces libertés est passible de peine lépp loo xam ne dafay empêcher citoyen bi mu exercer ses droits mu exercer sa liberté loolu yoon daf koy tere mais dañ gis ni le président Macky Sall faalewul yoon pire encore mooy notre commandement territorial administration territoriale les forces de défense et de sécurité daf leen utiliser comme des bras armés contre les opposants du président Macky Sall tey lii benn article boo le président Macky daf ko def ak seen i naataangoo yooyu nekk ca dugal di leen wax ni constitution ak li ñuy wax droit leer na ci wàllu troisième candidature bu président Macky Sall maanaam subtilement wax na sénégalais yi ni dinaa def troisième candidature le président Macky wax na ko mu leer nañ ci képp kuy xalaat waaye ñun au niveau du mouvement Gëm sa bopp. dañ wàgg a wax non à la troisième candidature du président Macky Sall d'ailleurs looloo nekkoon suñu de bataille lors des législatives de 2022 ñu bëgg nag pour balayer la route au président Macky Sall dañu bëggoon ñu dem rapidement ci installation cellules parce que loolu moo ñu may une organisation bu ñu mën a permettre ñu jël Macky Sall ceinture ko sànni ko mu génn ci géew ñun lam-laamewuñ ni président Macky Sall même bu laajee troisième candidature dañ koy gañ lam-laamewuñ ko amuñ ci benn yoon si gisaat mais bu bokkee dafay pousser jeu bi parce que deuxième tour même bu dee am warul nekk entre Macky Sall ak un dafa war a nekk entre deux opposants yu nekk ci terrain bi jeu boobu nag dañuy bañ mu pousser ko moo tax ñuy wax ni le conseil constitutionnel ñu koy àttu parce gis nañ privilège yi nga xam ne jox leen ko gis nañ aussi ñi leen taxawoo ci ñi nga xam mooy renforcer seen sécurité gis nañ conseil constitutionnel ni muy laamisoo ak le président Macky ba lépp lu ko jébbal mu defare ko ni ko loolu nag ñi ci àttu devant l'opinion nationale et internationale beneen bi mooy au niveau de la grande coalition Gëm sa bopp bu ñu xoolee premier point bi nga xam ne moom la ñu consacré programme bi dañu wax ni le culte du travail et du civisme dañ ko war a restaurer suñu manière de pratiquer la politique li ñuy wax restaurer les valeurs jom fulla ngor dañ ko war a ci suñu espace politique parce que léegi képp ku la wax rek nga mën ci am doute à cinquante pour cent li ñu bëgg nag mooy valeurs yi nga xam ni moo fondé woon suñu république valeurs yooyu ñu restaurer bi mooy li nga xam ni mooy ay luubal alalu réew mi ak li nga xam ni mooy injustice bu nit ñi di dund ba suñuy doom di dee ci benn bi loolu aussi ñu fexe duñ ko éviter jàpp naa ni daal ñi fi teew ay soppey président Bougane lañ waaye tam ñu bëri président Bougane lañ kon nag ñu ngi signaler que le président Bougane est en cours de route et ñu fexe def transmission de la parole en mu ñëw bu defee ñu waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom su ko defee nag dañuy dalal kenn koo xam ne kilifa la suñu muy maire Aïda Seck ma leen ñaan ngeen tàcc ko bu baax a baax a baax mooy jàmbaari gëm sa bopp suñu yaay di nga xam ne métti wul mu daw à chaque fois mu ngi suñu ginnaaw donc maire Aïda Seck tàcc leen ko waay bu ñu góor yi di leen ziar bu wér di jaboot yëpp a sonn jaboot yëpp a jàpp ay waay jaboot bii nanu dimbali li laay war suuli ñun man nag bala may bëgg a jooy rek ñu naan parrainage parrainage parrainage waaye bu mën nga am parrainage tan génn national lu génn fi troisième te coalition wul ak kenn kon kooku coalition lu muy def yow dina day yaay day mbir yow loolu yow loo war a rek mooy tafu ci sa kaw ñàpp yow mi nga xamante ni yaa yor poche noire bi di buur di bumbi mu ñëw topp ci sa ginnaaw daanu teg benn coalition bu ñaari coalition laa tax kon suñu bañee moom moo yey nag fi ne nii nag ne gëm sa bopp bii jar naa bàyyi xel nga xam ne nag lañu posé sa bopp moo fi nekk dem élection seul. te commencé soobu fekk genn génn troisième te moom moomu nag ci kàttanu suñu borom troisième jooju ñu première fi na la ñuy dagg ndax moom dorog la bokk moom moom may yéen yàlla ak yéen bi moom may waxtu may jël na nga génn li laay war a suuli le deuxième mandat bi ngeen man joxoon bi ma doon xeex sénégalais yi ci laay yëm ak yéen jaar ci porte bu mag bi ñu félicité ko moo gën di jaar ci kokutaleeg rondal yi di daw di dem boobaa nag réccu lay fekk nag jëf wees ndax du ko may troisième mandat bi moo ko may kon nag ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp ba salaam ci def mooy chaque élection da ngeen jàpp ne gëm sa bopp waru mën a am pare yu mag mais tey 2024 incha allah bu ci yeggee jàpp président Bougane mooy doon candidat bi nga xam ngeen jàllale ko parrainage mu jàll ngeen ñàkk ko jàllale parrainage mu jàll incha allah merci beaucoup. ñu defal ko un standing ovation Mame Bousso euh, nekk responsable ci gëm sa bopp et ñu ñuy signaler aussi que le président déjà sur place et ñu def standing ovation pour accueillir ko bu baax a baax ñu tàcc ci président Bougane bu successeur du président Macky Sall mu waxtaan ak njabootam waxtaan ak Sénégal waxtaan ak le monde entier. merci beaucoup ñu ñëpp toog ñu ñëpp toog. merci beaucoup. en perspective de la présidentielle de février Mais tout a été entrepris pour saboter la manifestation, ce qui est peine parce que les braves femmes de Gumsebop sont plus que jamais déterminées. Gumsebop demande d'ailleurs à l'opposition

se trouve le leader de PASTEF, qui, à qui nous souhaitons un prompt rétablissement. Nous interpellons les autorités sur les nombreuses arrestations qui viennent allonger la liste déjà très longue des détenus politiques. Tout en nous inclinant devant la mémoire des martyrs, nous dénonçons la mort ce jour du jeune Mamadou Korkaba à Bignon. Il n'était âgé que de ans. Le peuple sénégalais veut savoir pourquoi alors on tire à balles réelles sur de simples manifestants. Entre le mars et aujourd'hui, le Sénégal a enregistré trois morts. Nous interpellons chaque acteur dans son périmètre de responsabilité. En premier, le président de la République, garant des droits et libertés individuelles et collectives. Il est dans l'obligation de conduire les parties prenantes vers la restauration de la confiance mutuelle, d'un dialogue politique imminent, franc et sincère. Sinon,

sur l'utilisation et la manipulation de ces 98 milliards. Mais aussi, je vais saisir l'OFNA les 13 milliards de commissions distribuées sans l'aval du ministère des Finances. Nous irons la démocratie dans leen di gërëm di tàmbali remerciement bi ci jigéenu gëm sa bopp yi nga xam ne teew nañu maa ngi leen di remercier may wax rek jaajëf ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi bokk ci coalition bu gëm sa bopp te tey ñu def déplacement bi li d'abord ci wax li xew xam ngeen ne samedi jigéen yu gëm sa bopp dañu war a amal ndajem investiture ne su ma jëmm ju xeebu ji nee nañu ma jàkk tànn nañu ma ngir yóbbu ma ci élection présidentielle de 2020 alors loolu maa ngi ci remercier di leen wax ne marque de confiance la yàlla nañu suñu borom dimbali jox ñu kattan ba yaakaar boobu ngeen am ci suma jëmm ji yaakaar boobu bañ a yàkkeeku ni suñu yaakaar yàkkeekoo ci Macky Sall ak administration seen yéene moo doon saboté manifestation boobu ñu doon def seen yéene moo doon yàq manifestation boobu jigéenu gëm sa bopp bu région de Dakar amoon yéene def ñu gis ci administration territoriale bu partisan administration territoriale bu féete administration teritorial bu àndal ak ñaaxaanaay administration territoriale boo xam ne à la c'est des politiciens encaboulés, à commencer par le ministre de l'Intérieur, c'est dit Antoine Félix Diop. ma bëgg ñu wax ko rek mooy autorisation xëy na dañu koy wax rek waaye këyit bi ñuy jot day définir plage horaire yi ñu war a barab ba ñuy defee manifestation waaye bu fekkee da ànd ak administration bu cuune ànd ak administration territoriale boo xam ne ànduñu ak yàlla xalaatuñu seen njaboot wutaluñu way seen njaboot dañuy jege et loolu moo xew sàmm parce que autorisation bi yónnee jigéenu gëm sa bopp ñu ngi leen ko yónnee à 13 heures manifestation bi waroon commencé 14 heures 15 heures ñu yónnee leen ko 13 heures ci whatsapp te naan leen ñëw leen ngeen déchargé ci comme man ay jigéen yu am fulla la àndal bi mu ma wonee bi mu ma wanee message bi mu yónnee commissaire bi damaa tax suma gémmi waaye nag fullaay jaay naka ordre bu illégale kala ko sant boo ko defee jàdd nga yoon ordre bu illégale danga ko war a xeex c'est pourquoi je dénonce l'attitude de l'administration territoriale dañuy wax nit ñi ne leen wuti leen autorisation ñaata manifestation ngeen gis ñu dal ci seen kaw parce que amuñu autorisation waaw bu nit wutee autorisation nga jëm koo galgal wutloo ci camlangal waaye xam ngeen ne nag booy invité nit ci sa ngénte doo bàyyi ba ci jour bi doo ko koy wax bu fekkee bëgg nga mu lekk ci la te malheureusement C'est ce qui s'est passé le samedi avec le sous-préfet de Daouda et le ministre de l'Intérieur, de l'Intérieur, Antoine Félix Diop. moo tax may sàkku ci opposition bu Sénégal bi ñu bokk rawatina ñi ñu toogal ci assemblée nationale parce que ay loi moo yore réew règlement moo yore réew ñu ne autorisation yooyu ñuy wax faw ñu soppar ñu loi opposition bi sàkku si autorité administrative yi désormais bépp dogal bu ñuy jël ñu génne ko ñaari fan laata manifestation bi mu am parce que bu boobaa dana permettre nit ñi mun a amal seen wàcce parce que nag jigéenu gëm sa bopp bi ma mujjee wax ak Aïda Seck la ñu ñoom ci seen biir la ñu ñoom ci seen biir def seeni ndiróole def seeni échange la ca def yëpp toll na ci 16 millions waaw 16 millions bu ñu leen ko yàqalee xam naa ne tooñ nañu leen mais ña leen ko yàqal xamuñu nu ñuy liggéeyee 16 millions nu ñuy sàccee 16 millions lañu xam beneen bi ci des mooy li xew bi nekk ci réew jaaxle bi nekk ci njaboot jafe-jafe yi nekk ci njaboot njaboot bu nekk tey jii sa fit dogal le 16 mars ak léegi fukk ñetti nit du moins seen bakkan rot na bi ci mujj tey jii la ca Bindoor Mamadou Kork ñu ne ma 22 ans la am bi ñu ma ko waxee suma xel dem ci ndeyam suma xel dem ci ay waajur parce que góor mën naa gaaw a fàtte waaye bu leen fàtte ni mooy sukk jur kon li muy metti metti ci jigéen ñi yéen la gën a metti et daf may fàttali événement yi fi amoon mars deux mille ba ma fa demee sëñ bi sant Dramé te bakkanam rotoon ca ba ma demee ñu wan ma ñeenti doomam xalaatuma kenn seen yaay laa moo tax ca jamono boobu laa jël décision ne leen ñii ba keroog bi am fukki at ak juróom-ñett sant naa sumay service bu weer wu nekk ñu yónnee leen vous savez loolu li tax ma koy def damay wax saa su ne ne bari na ndaw ci Sénégal bari na ay jeunes yoo xam ne seen espoir dañ ko rey kenn waralu ko lenn waralu ko lu may ay politiciens yu bon ay njiitu sàcc ay njiitu rawalekat ay njiit yoo xam ne dara jitteelu leen lu dul muucu deretu askan loolu nag moo tax ñu war a xoolaat suñu bopp loolu moo tax politiciens yi jàpp ne dañoo moom réew mi ñu wan leen ne Sénégal moomuñu ko su ma gëm-gëm ak taxawaay bi ma am man Bougane ak imaam Ndeye ci gëm sa bopp mooy wan Sénégalais yi ne leen du politicien mooy defar réew wan Sénégalais yi ne leen dañ yàgg nax naan ñu état mooy defar réew état du defar réew état day organiser réew état day veiller ci ay règles waaye réew mu la ëpp koom-koom réew mu la ëpp jom ci wàllu jënd ak jaay réew moomu moo la ëpp doole kon ñun dañu yàgg nax Sénégal bu ñu bëggee mu dox nañu fexe suñu koom-koom taxaw koom-koom boobu bu waree taxaw ci yéen ñi lay jaar bàyyi leen di xaar ñi ñu jiite parce que ñi ñu jiite seen ñàkk yéen la ñu yaakaar fonctionnaire bi toog ci bureau bi yow mii teg sa table boo jëndiwul ceeb jëndiwuloo liitaru dëwlin jëndiwuloo crédit téléphone moom mi toog ci bureau bi karawaatu du am lu mu defub salaire alkaati bi ci mbedd mi du am lu mu defub salaire waaw mais bi ñoo am importance population boobu nag faw ñu bàyyi leen xel parce que tey jii biir na ñëpp ne kër yi jigéen ñi ñoo ko yor yéen jigéen ñi yéen a koy doon biir na ñëpp ne seen taxawaay bi ngeen am ci seen lépp jëmul fenn lu may taxawu njaboot njaboot boobu tey moo jaaxle njaboot boobu tey la diggoon yaakaar Macky Sall diggoon ñu yaakaar fukki at ñuy dundee yaakaar mu diglu yoonu yokkute ne leen dong moo ñu soxla fexe ba njaboot jafe-jafe yii ñu nekk ñu teggi leen kon nag xam leen ni incha allahu rabbi danañu gën a góorgóorlu ci yéene bi nga xam ne am ngeen ko ci ñun li may wax rek ne il faut ñu xeex lii ñu tuddee système te système boobu moo lay gëmloo yow sénégalais bi ne la ñoom ñoo la war a jiite mooy tax président daanaka rakku yàlla mooy def lu ko neex dafa am kàddu yoo xam ne procureur Alioune ndaw daf ko wax kenn bàyyiwu ci xel procureur Alioune Ndao nee bi mu nekkee ci CREI yi Macky Sall daf ko ba mu ñëw ne ko bul arrêté Abdoulaye Baldé ñun foofu la ñu président boo xam ne day nekk yàlla mooy dogal mooy def mooy jiw loolu ñun ñu ne doole président boobu jot nañu wàññi ko ci Sénégal te loolu nag warul doon wax dong moo taxoon ma amoon yaakaar bu rëy ci opposition bi ñu tukkee ci biir assemblée nationale malheureusement ñu teg fa ab njiit loo xam ne sénégalais xamuñu ko kenn xamul fu mu kenn xamul fu mu lépp lu nit ñi bëgg def ci jubbanti Sénégal. moom président assemblée nationale bokk na ci ñu koy salfane kon nag ñu war gëm ne justice bi ci ñenn ñi ñu ko sañ wax dañu leen di xolloo yenn ci ay bërëb loolu nag jot na mu dakk parce que li procureur Alioune Ndao wax day firnde rek ne bu dee liste vingt cinq ñu topp ci kenn dong génne ko réew mi te kenn xamul naka la mbir yi dem li nit ñi mën a jàpp mooy am na taxan féete bu wet justice équitable dañu ko soxla ci Sénégal justice bu tëddee njaaxaanaay dañu ko soxla ci Sénégal justice boo xam ne Sénégalais yi dañu koy wóolu dañu ko soxla ci Sénégal loolu day tax ñu def truchement dugg ci ñetti nit ñi nga xam ne seen bakkan rot gis nañu démocratie Sénégal ni ñu koy salfaañe gis nañu ni ñuy dale ci kaw opposant ku ne gis na li dal ci kaw Ousmane Sonko may ñaan suñu borom fëgg boppam waaye waaye nag waaye nag may fàttali acteur politique yi ci Sénégal ne moomu leen réew may fàttali acteur politique yi ci Sénégal ne bu yoboo ngeen taxaw jël seen responsabilité ki ci jiitu nag di président Macky moom soxna Batoor moom lañu wax moom moom li ngeen tuddee soxna Batoor moom lañu jox réew mi moom lañu jox càkkal guyu réew mi moom lañu wax ne ko mu ne ñum la jox président Macky Sall ngalawaay booy dem góorgóorlu ba bàyyi ñu fi réew mu ne ñun réew mu ànd ak dal réew mu ànd ak jàmm réew mu ànd ak sutura réew moo xam ne borom kër yi seen xel dana dal parce que loolu la soxla ci réew mu mel ni Sénégal kon may am yaakaar ci taxawaay bi nga xam ne kenn ku nekk ci ñun war na ko am. gisee Sénégal li muy doxe tey jii dafa am benn interview bu ñu jot ci presse moom président Macky li ñu doon ruumandaat di wax waxi troisième mandat liir leen bu baax li wax moom ci boppam nee na admettre na ne que question bi c'est une waaye bu ngeen xoolee nangu na ne bu nangoo sóobu ñetteelu mandat lay def xam na ne sénégalais yi pare wuñu pour jox ko moom Macky Sall ñetteelu mandat parce que moom Macky Sall Macky Sall tële la wane Macky Sall mënatul def lu weesu li mu def Macky Sall tële ak yaradal la wane te lii mu def mëntu la weesu lii mu def damay wax a démb kenn ma ne ko xoolal fi teer bi jaar commune yi teer bi jaar yëpp aka ñoo am lu leen métti aka ñoo am ay jafe aka ñoo am problème mu inondation anal aka ñoo am problème mu assainissement aka ñoo am problème mu santé jamonoy noos parce que l'ivresse du pouvoir daf ko yóbbu moom Macky Sall ci nawlootul yéen Sénégalais yi ngeen doon Macky dafa yegg foo xam ne jàpp na ne moom confort personnel la loolu rek moo am solo xoolal fi muy jaar bëtam fi muy tegu bu jógee këram di jëm pare ñaata la fa def vingt trois milliards ci ci ci ci ay fleur ak i defi njoowaan C'est la réalité. C'est une triste réalité. Au même nga dem Jaxaay seen centre de santé bi ñu ngi koy tabax fukki at ak benn mën na yem. au même nga dem quartier ay numaat nga dem quartier Serigne Mansour nga dem Bawol fii ci Tivaouane Peulh boo demee ndoxum teen la ñuy naan boo jigéen ñi dëkk Bawol jigéen ñi dëkk Bawol fii ci Dakar ci Tivaouane Peulh ay biceps la ñu am parce que dañuy xëcc ci bopp et ça on parle ne du teew nii na ngi ñuy toog waaw kon bu fekkee ne moom Macky Sall tey jii gi gundaandaat ci alalu réew mi ak njabootam waa Medina Gana Sarr ñu ngi fii ñu ngi may dégg waa Medina Gana Sarr ci zone de recasement fii ci Kër Massar ay saret la ñuy consigné leen bis bu nekk ngir nit kuy mucc saret yi ñoo lay génne pour yóbbu la ci hôpital loolu biir Dakar kon jot ñun ñu xam suñu bopp jot nañu mën a jëflante ak ñi nga xam ne dara yitteelu leen lu may lekk alalu réew mi lu may dundee ñàkku baadoole yi te loolu faaw taxaw ci ngir mën koo fee jël beneen bi nga xam ne mooy jafe-jafe yi waay waay ku ne gis na ni location tey la gën a seer Dakar ku ne xam na ne naxe mbaay la li ñu doon wax ne dañuy wàññi location mais man bi ma gën a yittee damay wax suma collaborateur yi démb ci waxtaan ma leen dama jóge ci njaboot goo xam ne booy xëy doo ndékki bu midi jotee dañuy toltolaan fexe ba nga am añ ñu tibb ci reer te tey jii laa gën a gëm ne tey na loolu gën a bari Sénégal jafe-jafe yi jafe yi nga xam ne yéen njaboot yi yéen a koy jànkuwanteel ñu ne dañuy wàññee yaay njëg yi ci naxaate doom am na ku ne ma mais commerçant yi nanguwuñu wàññi njëg yi ma mais commerçant yi dañ leen bëgg tooñ rek mais ku nekk xam na ne njëg yi mënut a wàññeeku te taxes yi wàññeeku te ki fixé taxes yi mooy président de la république def taxes yi mooy ñoom ñi jiite réew mi. parce que ci taxe yooyu la ñuy dunde ci taxe yooyu la ñuy dundale seen njaboot ci taxe yooyu la ñu jël di pasar pasare alalu réew mi kon commerçant bi lu ko waay wax da koy tooñ commerçant bi tey jii nañ koo wax ne ko suukar si nga doon indi Dakar suukar sa nga doon jaay Dakar léegi da ngay dem ci usine ba jënd ko waaw léegi kooku sañ nga mu jël otoom dem jëndi suukar si ba noppi dellusiwaat jaay ko njëkk mu ko doon jaay ma ne waxtaan wax dëgg sax làmmiñ bu waxul dëgg wax saxaar kon jafe-jafe yi ngeen nekk kenn tegu ku may président Macky Sall parce que moom moo yokk njëg yi moo yokk dund gi te loolu moom yëgu kon nag ngeen xam ne ñoom ñu ngi fooye alalu réew waaye pare nañu ñun gëm sa bopp pour jëflante ak ñoom pare nañu nag pour jàkkaarloo ak ñun may wax rek ci coowal quatre-vingt-dix-huit milliards xam muy tey muy ëllëg quatre vingt yooyu dana leer moom Mansour Faye tey jii bu nekkee ci réew mi di lapp-lapp dara waralu ko lu may sëyam sëyu sëram bu neex waaye nag na xam ne na xam ne sénégalais yi teg nañu leen bët te alalu réew mi danañu ko gox waxuma la rees danañu ko gox parce que quatre-vingt-dix-huit milliards yooyu ma doon wax des fois ma dégg am na benn député bu ñàkk xorom boo xam ne comme mor na lu xewu duuf ci mu naan buggaan day wut bës man ba may man ba ma amee bës kenn xamul bind na lettre jëme ko ci ministre Moustapha Ba di ko demander mu reconnaître compte bancaire yooyu may wax na neexale ko ay commission neexale ko ay nit dinaa bind OFNAC ngir OFNAC leeral problème mu quatre nag alal ji suñu alal la suñu ay doom ñoo koy fay suñu ay sët ñoo koy fay te alal ji bi ñu koy lekk ci turu Sénégal lañu ko lekk kon encore une fois maa ngi wax ne taxaw nañu jatu ne soccant di leen xaar am na beneen coow may masawu le premier ministre Hadjibou Soumaré ndeysaan xam nga Hadjibou Soumaré bu ñu ko tuddee xel yëpp dem ci un commis de l'État quelqu'un boo xam ne dafa liggéey lu ëpp quarante mu liggéey ci xaalisu état liggéey ci trésor public nekk ministre du budget nekk premier ministre nekk président bu UEMOA kon kooku dañ ko waral respecté parce que du wax waxi kasaw kasaw dafa wax waxi huit milliards yi ñu convoqué ko man quatre-vingt-dix-huit milliards laa wax. Adi Hadjibou Soumaré dafa wax sept milliards ñu convoqué ko man ma ne man ma ne treize milliards. joué intermédiaire diggante Macron ak Marine Le Pen. dinaa leen wax nag lu tax may leen moom may leen double question ci interview Marine Le nga xam ne noonu l'islam Marine Le nga xam ne bëggul julli Marine Le nga xam ne moom ak baayam jooju ñoom ñaar lu ñu yàqul l'islam dañu koo fat kooku la Macky Sall recevoir ci suñu palais maa ngi ñaan ñu dem wàcc ji fa ay kaam parce que Marine Le Pen ku jëmm ju war a dalal ci suñu suuf rek parce que saaga Sénégalais yi saaga jullit yi la waaye saaga Sénégalais yi nekk France parce que convention d'entraide judiciaire boobu nga xam ne dañ ko yóbbu assemblée nationale France Mélenchon dafa ne moom du ko signé dafa ne ñoom du ñu ko voté jàll na wala jàll ko ko wate Marine Le Pen laata muy voté ñuy voté ci assemblée nationale bu France lu jëm ci loi pour l'âge de la retraite nga xam ne Macron loolu daf ko soxal Macron amul majorité assemblée nationale bu France ñaari gàtt geen ñooy àndandoo moom Macron bi mu bëggee. yóbbu l'âge de la retraite à 64 ans Mélenchon mi yor beneen pàcc bi dafa bañ kan moo ko waroon voté pour mu jàll Marine Le Pen ñëwoon Sénégal kon nag xaayaat ku dégg séeréer moom Macky moom la Macron sant liggéey bi moom Macky moo nekkoon trait d'union diggante Macron ak Marine Le moom Macky pour mu recevoir Marine Le Pen au Sénégal Macron moom moo ko jox autorisation bu def moo tax gisuloo communiqué bu jógee Quai d'Orsay gisuloo communiqué bu jógee Élysée bu ñu ko weddee nañu ma prouver le contraire élégance élégance moo nanguwul nga nekk njiitu réew di recevoir opposant daloon nañu fii Mballo mais ku ne xam na ni Mballo booyu Ibou Ndafa la donc du def lu ko Ibou Ndafa joxul autorisation te ba ñu koy fii ci suuf Sénégal la ñu ko defee kon nag Hadjibou Soumaré nañu ko bàyyi Hadjibou bu du waxantu mën nañu ko xoñoñal mën nañu ko attaqué mën nañu teg épée de Damoclès ci kawam mais li wool mooy ñun suñu xel kenn mënu koo téye moom Macky Sall la mu def ak Marine Le Pen xam na Macron xam na mais nit ñi jëli nañu la ca nekk maa ngi leen di gërëm di leen sant jërëjëf première question mooy xanaa da nga xam ne réew mi amul procureur moo tax nga ñu def lii wala wala da nga am ay preuve yu wóor a wóor yoo dégg. Euh, man journaliste la comme yow. mais ma wax lu ma wóor. ñun ba noppi. ma nekk ci làmb boo xam ne nee nañu apprenti politicien apprenti politicien moom mooy traqué. ñi nga xam ne ñooy sàcc ak luubal alalu réew. beneen ñu gis manifestation ci fin week-end bi ñi fi jot am gisul ci de près gisul ci de loin gëm sa bopp ak bu tàngee def lan moo waral loolu. mais li ma wax léegi ci manifestation yi yaakaar naa ne tënk na leen. dana ko ci ñeneen ci kilifa ñu bokkul ci làng boobu ci mbedd bi ma ne man dama am benn taxawaay mooy li ma gëm réew li ma la sax acteurs yi nañu jël seen responsabilité kenn warul taal réew kenn war te jéem taal réew waaye loolu yëpp ci ndodd benn nit la rek muy président Macky Sall parce que ñii fi dee ñëpp ci boppam la teg moom président Macky Sall li ñu mën mooy bokk ci ñi koy dénoncé li ñu mën mooy bokk ci ñi koy ñaw et je crois que boobaak léegi ñooy gën waaw kon dañ ko bëgg a wax ne réew mi un million six cent mille tonnes la ñuy diggale même boo soo sérieux il faut ñu bàyyi di fen réew mi il faut ñu bàyyi di wax nit ñi wax yoo xam ne saupoudrage et ci loolu la jublu l'histoire de la cherté de la vie ñoom xam nañu ne tant que wàññiwuñu taxes yi commerçant yi mënuñoo wàññi njëg ak subvention yu ñu mën a def parce que ce qu'il faut comprendre mooy commerçant bi du day jaay ceeb doom wala muy jaay diwlin doom commerçant bi day jaay diwlin bu jaayee diwlin day dem jëndi dugub kii jaay dugub day dem jëndi crédit kii jaay euh, macaroni certainement day dem jëndi euh, aliment de volaille donc chaque fois bu amee benn baisse wala ci prix day impacté ci nit kon il faut que Macky Sall ak ñi mu wax population bi dëgg wax population bi dëgg mooy tey jii dama lay jox benn exemple bu baax est-ce que xam nga kilo ceeb kilo ceeb bu yegsee pooru Ndakaar lu muy jar kilo ceeb bu yegsee pooru Ndakaar buñ ko benn waanee kilo ceeb bi xam nga lu muy jar matul deux cent cinquante ñu teg ci ay taxes di ci teg ay taxes di ci teg ay taxes di ci teg ay bi bi ci wut ki nekk ci digg bi di ci wut ba mu yegg cinq cent cinquante six cent mais donc moo tax ma ne la waxuñu nit ñi dëgg et bi ñu yor il faut ñu tàmm di wax sénégalais yi dëgg taxe yi ñu teg ci li ñu am comme produit taxe yooyu moo bari e tant que président Macky Sall wàññiwul tax dund googu du mos wàññi moo tax ñun ci gëm sa bopp dañu jàpp ne lépp loo xam ne lu nit ñi di jëfandikoo la muy denrée de première nécessité lépp luy douane bu ñu jotee réew mi lañ ko ciy teg donc li ñu gëm mooy kilo ceeb man bu gan su ma jotee réew mi du jar 400 francs incha allah.